up in the morning time. Nico dille jox good vibes. Ndekki lu neex tàng jër. Sud FM mooy naa. Sénégal man la bay di bi bu bees yaa ngi ci émission ndekki lii ak maam Nicolas Imam Maodo Faye jërëjëf mu ngoog 98.5 le choix de la différence Sud FM la première radio d'information du Sénégal bonjour dellu di leen nuyu di leen bëggee di leen ziar ak di amati mbégte nanu koy amee suba su ne bu nu xëyee di àndandook yéen seen émission ndekki li émission nandite yi xam ngeen na muy euh, semaine bu ne bu koy jeexal euh, dañu fiy dalal ay kàngam kàngam yooyee bokk na ci ki nga xam ne dalaloon nañ ko semaine bii ñu génn maag oustaz Maodo Faye di Pape Alé euh, te mu def buzz lool ci plateforme digitale yi wante bokk na ci it nga xam ne da taamu yéen eh, def ko eh, le député du peuple eh, def ko seen député looloo waral tey ñu indi leen ko yéen itam yéen ñi ko taamu def ko number one ci député yi muy kilifa gi nga xam ne oustaz Maodo Faye moom la noo dalal tey laata ñu koy introduire ma bàyyi la kon yaa oustaz nga nuyoog mbokki askan wi dellu di la bëggee di la ziyaar te naan la déwénati. waaye déwénati Nicolas mbokk yi ñu Euh, ni nga ko waxee léegi noonu lay demee parce que émission bi wax dëgg yàlla euh, yow xam nga Kaolack ñi ngi jokkoo ak yow jamono bi ñu toll soo demee Louga fi toll ni ñi ngi ñi ngi synchronisé euh, toll ni ñi ngi ñi ak yeneen gox yu bare bari même ba mm. ak suñu yeneen rajo itam kon ak ñi nga xam ne ñu ngi jaar ci net bi moo tax tey Cheikh Abdou Bara Dolly ñu teg ko fi tey jii mm. jaar ci turu fi saa si ndax moom Sénégal yi di ngeen dootu ko laaj Euh, muy nag koo xam ne kii moom day waxal peuple bi waaye nag itam moom ay moom dafa xam naa yëfi mbàkke mbàkke moom xam mbàkke mbàkke yi moom comme man santu séeréer laa yor mën naa leen a sànni xeer ay pël lañ ndax léeg-léeg dañuy dañuy taxaw ci buñu taxasee ba ngooñ ci dara duñu dellu ginnaaw léegi nag bu la neexee léegi ma dem ci laaj yi bu la neexee nga ubbi aywa enchaîner direct waaw man kay li ma lay njëkk a laaj mooy mbas mi damay dégg nga wax cee wax a wax en tant que député boo xam ne bii yaa bokk bokk gis-gisan ah. ci nga ci nga amee sa mandature ñu daal lay samp ci assemblée nationale noo jàngatee mbas mi première vague deuxième vague troisième vague gouvernement bi liggéeyam loo ko jàngat en tan que gu yore kàddu askan wi. Maodo maa ngi lay fay. Mhm. di la nuyu di nuyu borom rajo bi di nuyu mboolem ñuy déglu. Mhm. di tàmbale sama cant ak sama ngërëm jàmm ko ci xalifa sama murid Sëriñ Muntaxa mu yàgg ñu ko ñaan mu yàgg fi loolu wér mhm. di doole jaale askan wi suñu ñaari waajur fi jógee muy xalifa sama Laayeen ak xalifa sama Janaba di ndokkeel askan aussi ci bis bi nga xamante ni moom la ñuy màggal tey muy euh, tamxarit yaakaar naa ni foofu lañuy ñuy tàmbale ñaanal ñëpp jàmm xam naa ne waa Touba ñi ñuy déglu mhm. di ñaan aussi émission yi mu nekk émission boo xam ne li ñu siy wax dana nekk njariñu askan wi ndax loolu la ñuy mhm. ma ñëw nag directement ci laaj bi laaj bi dafa nekk laaj boo xam ne dafa am solo ku ne xam na ni bi mbas mi ñëwee président de la république Macky Sall dafa woote woon ci pale bi wax ni dama bëgg maanaam ñu ñëpp ñu àndandoo guerre xeex li nga xamante ni tey mooy mbas mi dugg suñu réew mhm. ñu àndandoo ñu ñëpp da wuyu ko jël loi habilitation 1000 milliards jox ko mu jël 65 milliards francs CFA jox ministre la santé jël 74 milliards jox gorom jël jël jël joxe ñu dem ba nga xamante ne maanaam 3 mois yi jeex na mu indi ni maanaam li naan la ratification li nga xamante ne ay loi la woon mu jëm ci mbirum euh, euh, loi yi mu jëm ci mbirum ñi nga xam dañuy liggéey ci usines yi mu jëm ci mbirum presse bi pour ñu rectifier ko assemblée nationale mhm. bi muy ñëw man mi nga xamante ni député peuple bi laa si ni nga ko waxe peuple bi waxe loolu man maa wax finance ni ko loo xamante ni joxe nañ ko te amaguñ ay retour ci rapport yi nga xamante ni mooy li ñu yónnee woon pour que François Ndiaye jiite woon ko ay enquête si loolu ndax li ñu def xaalis bi jaar nañ wala yoon amuñu sañ-sañ di ko rectifier mais comme ñoom député yoo xamante ni ndigalu Macky Sall la ñuy jëfandikoo ñu rectifier loolu xaalis boobu noonu toog nañ maanaam su may wax yow ñaari at assemblée nationale ci article quatre-vingt-quinze bi demande na question écrite ak actualité jébbal ko Abdoulaye Diouf Sarr ministre la santé pour mu ñëw assemblée leeral xaalis boobu noonu ba tey nangutu ñëw. daalank kon jàpp naa ni loolu ñoom bëgguñu mu leer bi nga xamante ni yàlla dogal na première vague bi jàll na deuxième vague jàll na troisième vague ñëw gën a garaaw président la république bi nga xamante ni noonu la woote woon ci première bi au lieu que bi ñàkk yu ñëwee mu woote waat pour ñu ñëpp ñu àndandoo sensibiliser mu jël ñàkk yi def ko moom jabaram doomam ay ministère ak ay député ñu toog jàpp suñu bopp. kon jàpp naa ni ni ñu ko seeree xam nga ñàkk boo koy jox pour population yi moo tax nga di ko mais waruloo ko jël pour ay problèmes pour yow sa bopp ak say député wala say ministre moo tax man mi wax ak yow man ni nangu ñemewuma ñàkk nanguwuma ñàkk tant que population bi nga xam ne population lambda bi ñoo ñu jox maanaam 4500 milliards pour ñu doxal ñàkkuwun ba pare. moo tax kon kon euh, honorable yow ñàkkoogoo ba léegi ñàkkuwuma te fas yéene woo ñàkku tant que population bi ñàkkuwun wala lu si bari ñàkkuwun mais population bi ñu ngi ñàkku de. waaw xam nga dama ne ngay bëgg ba masul ci population moo tax may gis nga dafa am loo xamante ni ñun dañ ko war a bàyyi Afrique. Mm-hmm. gis nga jël problème si ñàkk tax na France si boppam am si ñoo xam topp na leen si yoon mooy du yoon sa population lambda bi nga xamante ñu nga ba fa la fa mm-hmm. war a ñàkku te am gisuñu ñu ñàkk mun ñoo ñàkk war ñu jël ñàkk yamale ko suñu bopp ak suñu biir ak suñu njaboot ak suñuy xarit loolu d'accord ma si te dama defe ni aussi tamit ñàkk buy ñëw Sénégal dafa am maanaam le benn comité boo xam moom la ñuy wax scientifique bu war a teew boo xam ne ñàkk yi temps bii lay diire temps bii lay def lii tax mu ñëw lii lay faj ku ko am du tee mu dal waaye lii waaye ku ne xam ne communication bi mu war a communiquer sax defuñu ko loolu yëpp am na kon jàpp naa ni loolu problème la problème bi kan la ñoom ñi nga xam ñoom ñoo ko jite boo xoolee bi nga xam mooy troisième vague bi ñëw na la delta bi mu ñëwee mais ku ne xam na ni vaccin Johnson Johnson Johnson Johnson bi ñëw na mais dañ ko suspendre États-Unis suspendre ko Europe mais lu tax ñoom bi mu ñëwee mun ñu jël benn temps pour commu def benn commission scientifique ñu xam ñàkk Johnson Johnson boobu noonu ci yan critère lañ ko liggéey ak lan lay jañ ak lan lay wàññi bu defee maanaam ñu jox ko jox askan wi. mais ñoom bi ñu ko jëlee automatiquement bi ñu ko jëlee aéroport rek dem yóbbu ko si. askan euh, euh, euh, est-ce nga ko foofu ca assemblée bi ngay bi ngay. xam nga Johnson Johnson bi muy ñëw fekk na assemblée nationale tëj. Hmm. man la ma nekk vacance dañoo nekk vacance ba octobre. man la ma war a def. Hmm. bi nga xamante ni maanaam ab Abdoulaye Diouf saar premier ñàkk doos bi ñëw na mu publier si toiture am wane ne Chine moo ko may ay ñàkk bi mu ko defee ginnaaw mu fee ñu dañ ko jënd te jënd gi leeruñu man la ma war a def mooy laaj naa ki nga xamante ne mooy ambassade Chine laaj ko ñàkk yi nga xamante ne moo dugg Sénégal est-ce que dañ koo jënd wala jënduñu ko ba pare bind ministre ministre bi nga xam moom ministre la santé jagleel ko li nga xamante ni mooy si li ma règlement intérieur ensemble sama si article 95 bi ni ko dama bëgg nga ñëw leeral ensemble askan wi xam dëgg dëgg dëgg lan mooy feebar bi fan la toll lan lañ si dépensé lan moo ci des ana matériel bi mais ba léegi nangutu ñëw ndax ñu tugul fenn assemblée parce que Macky Sall moo tugul fenn assemblée ku tugul fenn assemblée say kii say jëru mi nekk assemblée léegi oustaz euh, man euh, lenn moom ma jaaxal may fàttali mbokki auditeurs yi ak mbokki internautes yi ñu ngi en direct ah, ci suñu chaîne YouTube ak suñu page Facebook ngeen mën mën fa fekk waxtaan bi lenn moo ma jaaxal mooy hmm, honorable dañ ko fal euh, ren meilleur député de l'année waaw parce que jox ko ci trophée boo xam ne yóbbul na ko euh, xalif bi d'ailleurs mhm. Mhm. présenté ko ko ñu ko ñu koy ndokkale ci ci loolee mhm. euh, léegi yow ñu fal le meilleur député de l'année maanaam député du peuple quelque part euh, peuple bi nekk ci ay jafe-jafe du point de vue sanitaire jamono yi scientifique yi wax ci yu leer yow ngay dem à l'encontre de ces de ces scientifiques là ne man du ma ñàkku tant que majorité loolu moo moo moo euh, xaw a lëndëm sama bopp nu nu mu mënee nekk. xam nga Nicolas boo nee scientifique yi. Hmm. est-ce que yow da nga gis. mooy fajkat yi euh, fajkat yi nga xamante ni tey ñoo war a daje. Hmm. war a nekk ci kanam ñoom lañ del ci ginnaaw. Hmm. bari si tey ñoo xamante ni tey dañoo bàyyi kenn gisu leen. secrétaire général ministre de la santé bi nga xamante ni tey bi mbas mi tàmbalee moo waroon nekk si première dañ ko fal beneen poste mu bàyyi. bañ a liggéeyal si Sénégal dem liggéeyal feneen ñeneen ngi doon dégg ana ñu kon jàpp naa dafa am loo xamante nii du scientifique yi. Eh, ñoo ba léegi waxuñu la dama ni dama ni du scientifique yëpp ñoo daje hmm. accord. am nañu d' accord am nañu d' accord le le professeur Niang ak ñeneen ñeneen. Hmm. ñoo xam ne d' ñu ñoom ba tey am ñoo xam ne ñàkkagun hmm. c'est-à-dire gis nga ni ñu waroon a téye maanaam information wax askan kenn ku nekk dafa am làkk bu ñu war a waxee yow nga dégg. peuple bi ñëpp bokkuñu yem. mais bu fekkente ni tey yow da nga gis ñàkk boo xamante ni ña ko defar nanguwuñ koo ñàkkoo. yow ñu indil la ko te ñàkk bi dañ ko doon jaay tey ñu may ko Afrique yëpp yow nga jot sa wàll au lieu nga jël ko càmbar ko càmbaroo ko nga jële ko aéroport yóbbu ko ci maanaam ci poste santé yi est-ce que loolu jar nañ see maanaam liggéey est-ce que loolu jar a leeral la. est-ce que c'est dem bon man am na benn laaj ma Nicolas boo xam ne bëgg naa ko laaj l'honorable député mooy euh, fii ñu toll nii ñu ngi jëm ci ay élections local mais papier yi la xale yi mënta am foo dem loolu la booy naan dañuy kii fii ci suba rek dégg naa sax ñuy menacer fii naan 48 euh, heures xaw fan élément bi na ci su ngeen deful nag dañuy bloquer affaire yi yooyu parce que dafa mel ne daal ak càcc ci bëgg loolu xam nga man la ma waxoon mooy. Hmm. opposition bi dañoo nasax mooy c'est-à-dire war a taxaw taxawul noonu mooy lii bi nga xamante ni indi nañ ko ci Assemblée nationale hmm. ñuy censé li nga xam mooy L29 ak L30 hmm. dañ see boole wàlla changement L38 L38 bi dafa lay war ni la képp koo xamante ni tey bëgg nga bindu da ngay am carte d'identité CEDEAO kooku jaar na Assemblée nationale mais bi mu jaar Assemblée nationale ñun ñi nga xam opposition ñun donc ñoo si wax. léegi nag li nga xamante ne mooy liñ si waroon a liggéey dëgg-dëgg mooy wax ak askan bi nga xamante ne bu ñu demee pour bindu ji te nanguwul leen bindu ñu boole ko commission yi mbajam kanam borom moo koy fajal boppam yaakaar naa ni tey bu ñu soxla un million cinq cent mille yoo xamante ni am na gap te xale yu ndaw yi la mhm. am na ay carte d'identité mun na uskiru te loolu moo nekk si base bi xale yooyu bu ñu bindoo xam na ni un million bu mu wotee contre ko day daanu fii daanu maanaam 2022 moo tax mu def blocage dugal li nga xamante ni mooy loolu man mënuma nangu tey nga wut carte d'identité boo xamante ne carte d'identité CEDEAO la nga fay si ñaari junni toog maanaam dem daaf ñu defaral la ko pare nga wàññi ko waat ñëwaat ci commission pour binduwaat boo paree ñu jëlaat carte d'identité boobu sensé waat ko jox la beneen carte boo xam ne dafay ànd ak euh, loolu yenuwul maanaam lu ko yàq xaalis la kon il faut que ñoom li ñu bëgg def ñoom dañ ko def mais ñun li ñu war a def nañ ko def pour sensibiliser askan wi bu ñu demee pour bind ñu bañ leen jox ay résidence bañ leen jox ay certificat ñu bala ko euh, Euh, ñu ngi ñuy xibaar ne jeunes yi de plus en plus ñu ngi. bindu bindu waaw euh, ci ci voilà. Euh, mais mais da ngay gis ñu dem xaw am ay problème gars yi am nañu ñu bëri nga bindu nag. mais hmm. problème yi ba léegi am na. chef de quartier yi chef de village yi. de toutes les façons ci wàllu révision. Hmm, liste électorale yi ñu ngi yëg ne ku mel ni président bi jiite sena di Doudou Ndir mu ngi tàmbali à partir de ce week tournée. ngir dem sax bëgg na am na ko ci bëgg laaj am na ñoo ne war naa dem retraite bu yàgg bu yàgg waaw waroon na dem retraite bu yàgg tey jii may wax ak daanaka li mu fi nekk ni nekkul valable kooku daanaka mënul jox euh, loo xamante ne vision baax la pour ndaw ñi te yaakaar naa loolu dafa am lu des mooy communication bi ñu war a def hmm. pour askan wi état def ko parce que bu ñu ko defee nit ñi dem bindu te bëgguñu ñi bindu ci bu lee bu <laughs> lee <laughs> Euh, waa parti euh, au pouvoir ñu ngay annoncé ne de toutes les façons opposition bi moom ah, li ñuy yëngu-yëngal nii yëpp seen pertu ëllëg la ñuy annoncé. waaw waaw loolu pouvoir population bi ñoom nee na ñooy gagné comme leer na leen ne yéen da dañ leen di duma. yéen léegi da ngeen préparé wu quoi pour pour. Euh, pour jaxase carte voilà xam nga loolu moom seen wax la ndax ñoom amuñu sax candidat Dakar amuñu candidat fenn te ñoom jàpp na ni ñoom seen biir ñoo njëkk a gañante seen biir ñoo ñu doog leen a mën a gañe xam nga cest à am na loo xamante ni borom gi mën ko ñàkk di wax jàmm ndax ñoom xam na ni seen i pexe jeex na ndax askan bi génn nañ si ñoom tey jii bu suba doon élection Macky Sall ak nguuram day daanu. Hmm. fu mu mën di doon laa la wax. tey jii may wax ak yow li ñu doon xeex jël 766 milliards def ko si mbirum inondation yi gis nga mën ni mi tey jii baykat yi jot ñu jiw amuñu engrais tey jii may wax ak yow nappkat yi jaay nañ jëy yi courant bi seer na ndox mi seer na te kenn gisu ko kon askan woowu nga xamante ni tey jii ñoom ñoo nekk ci population bi war a far wala folle ñoom lépp loo xamante ni mën nañ ko def parce que maanaam makki Sall du falwaat ñoom daan ko def mais ñoom lépp loo xam mën nañ ko def si ay communication pour wax askan ni leen ñun jekk nañ fekk ni xam nga wax ku tiit boo ko gisee da nga koy xam ñoom dañoo tiit moo tax ñuy wax ni ñuy waxee. waaw ñu ngi toog ah ak Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ah, <laughs> député euh, fan yi nu damaa gis benn vidéo bu doon circulé ay xale yu nekk côté diggante Mbacké ak Euh, ci seen euh, parti bi ah defe naa bokk gis-gis benn waaye génn daan ne ci Abdou Bara Dolly li mu bëgg def fii ci dëkk bi duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg daa bëgg ay ndinam xëpp leen fii euh, benn booy la laa xam nga vidéo bi may wax fan yéenu génn war naa mat à peu près ay 15 jours 20 jours mhm. ne du yoon ndax diggante Touba ak moomu ko léegi li mu bëgg a samp fi ay nitam la fi bëgg a sant lu loolu la ci loolu la ci xam nga man aw nit ma mhm. tànn nit mooy képp koo xamante ni xam na ni am nañ sew yaakaar gis nañ si yow loo xamante ni lu méngoo ak seen bëgg-bëgg la hmm. yow la ñu àndal Touba incontournable kenn mënu ko gagné te àndu kooku yàlla ko def ah bon xoolu askan wi dañ ko def si man loolu euh, honorable euh, nga baal ma nga ne Touba kenn mënu ko gañe kenn mënu fa gagné te àndoo man te àndul ak yow kooku yàlla moo ko def loolu foo ko teg fi ma ko teg mooy askan wi nga xamante ni tey ñooy fale ñoom laa nekkal jël sama lépp jox leen ñu jël seen lépp jox ma raaye bi ngay wax ci commencement bi ma ko joxee la ma njëkk a def mooy dama dem jébbal ko xalif sant di murit ni ko ndam lu ndamul sëñ Tuubaa ndamul sëñ Tuubaa mooy ndamul nga xamante ndamul sëñ Tuubaa dama la koy dencal jël ko yóbbu ko si néeg sëriñ Basiiru ba fa la ko denc daal ni ma nan ànd dem julli ji kooku liggéey bu nangul ndax dañ ko defal loolu te loolu lépp Tuubaa ñoo ko moom te mus a am benn député bu ñu jox lu mel noonu ku sant Mbàkke nekk si département Mbàkke kon yaakaar naa ne guléet guléet ku loolu bu amee. Hmm. mais ndam la léegi nag askan wi dañ leen di laaj ñoom. Hmm. man mi nga xamante ni dama jël lu ëpp maanaam cent millions franc CFA bi ku bi ñëwee sëriñ bi woote heure bi daaw màggal gi muy un million de masques ma joxe ko sëñ bi woote ma dem jox gouverneur taxawu élèves yi fayal parents d'élèves ay pass pour xale yi dem jàngi taxawu leen si mbirum ndox. taxawu leen seen mbirum dund jox leen ay masques taxawu leen si mbirum courant jox leen ay machine wal ak ay machine soq mais askan woowu kat ku nekkut ak ñoom du nekk ak yow. est-ce que est du mujjee euh, euh, ci ci ci mairie ba sax. yaa mairie bi sëriñ bi mairie bi sëriñ bi moo koy joxe. Touba man dama wax ni. <coughs> yow bu fekkoonte ni Touba mooy Touba population Touba mooy wote. waaw tey jii may wax ak yow ka fa nekk maire du fa nekk maire. Hmm. ndax amu fa 10 pour cent. Hmm. ndax tey jii may wax a yow boo xoolee bits bi 4 milliards la mais lan na si investir 1 million un milliard la ñu wax 1 milliard 600 bis 2021 te fi may wax ak yow mënuloo teg sa baaraam ni fii. maire bi investir na fa tey buntu maire dafay taa ay curage yi nu war a def tey Touba. defuñu ko biir Touba. tey ji assainissement bi Touba amul éclairage public bi amul mbalit maa nga ni xas maire bi te di nelaw parce que war na ne population fël ñu ko bu ñu ko population fëlu ma fël fëlu ko mais fàllul population bi mais sëriñ bi bi si boppam nag la war a teg xam ne sëriñ bi dafa faale taalibe mais moom faalewul taalibe yi faalewul population moo tax ka lu ko neex lay doxale mais loolu sëriñ bi wax nañ si man ak moom am na yoo xam ne wax kilifa la am naa yéene pour bu ma sëriñ bi dénkee mairie bi dinaa ko sensé bu ma sëriñ bi tànnee feneen tamit pour yóbbu ma fa dinaa fa dem ndax man ab taalibe la mais li nga xamante ni conseil département la moom candidat laa si doon te dinaa ko gañe instant mën nañ euh, yaa am yaakaar bu weesoo conseil départemental bi mairie bi boppam ëllëg bu la ko euh, euh, sëriñ bi dénkee nga nga nga soppi loole lépp ca Touba. bu ma sëriñ bi dénkee mairie bi fa may njëkk def mooy bits bi di nekk 4 milliards dinaa ko yóbbu fukki milliards ci 200. dix milliards. waaw dix milliards. Hmm. dinaa defal assainissement bi la ma ca mën a def. Hmm. éclairage public dinaa ko jéem a yokk. Hmm. addition d'eau yi dinaa ko tasaare ci quartier yi. ba pare dinaa fexe marché Ocass ma moderniser ko ba mbalit maag taqaay baak mu am sécurité bu doy. mais pourquoi pourquoi président Macky Sall muy investir Touba te du ko gagné. lu mu fa def. ah déet ah, Macky Sall fii wax fii yaay def discours def na lii def na lii. waaw mais xam nga Maodo Macky Sall waxi Macky Sall jur dur sa doom. ah fa wax def ko. ah bon nekk na koo xam ni dafa am slogan boo xamante ni dafay wax naan def naa mais tey Touba la mu fa ronde bu ko fa defoon. Hmm. Touba du demee ni mu demee. Touba dafa manqué ndox jamay waxee mag lu jub si may de un mois Touba amul ndox. forage yi dañoo dañoo dañoo dañoo tëj. ndax liggéey yu bon yam fay def nii nga xam ne mooy corniche ba mu waxoon def te baare maanaam dëkk ba ñu si ba dañoo dagg tiwo yi assainissement amul tey jii fi may waxee yow lu tàmbalee 28 ba jumaa ji dañoo am temps. Hmm. boo demee gar bu waxee ñetti at a kenn mënu faa jaar fa nga xamante ni tey ONAS defoon na fa nga xamante ni mi ngi def cent quarante et un millions deux cent soixante quinze francs benn machine pompe boo xamante ni moom lañ fa waroon def fi may waxee foofu dafa taa muy si wetu kër ma dikk ñaar beneen pompe mi ngi ko def wetu ko Cheikh Mbass même chiffre même marché fi may waxee boo dee fa day taa. lan la fa Macky Sall def. donc donc donc euh, Macky Sall. Touba mi ngi tëmb si ndox. du du coup mi ngi tëmb si ndox. du coup def fa dara du coup donc euh, mënu fa gagné dara la en tout cas li leer ba mooy euh, moom bokk gis-gis la bokk. oui oui bu Pape Euh, euh, foofu ca Touba am na coow lu fi juddu bu bu bu yàggul boo xam ne euh, ay kilifa politique ñoo ko ñoo ko ñoo ko fi souligné wala ñoo ko ñoo ko ñoo ko génnee muy ku mel ni Moustapha Diakhaté ñu wax ñu laaj ko ci màggal gi ah. màggal Touba bi puisque ñu ngi doon wax sànq ah, wax. loolu fi bu yàggu rek. voilà mu wax ci Covid. voilà mu wax ci Covid bi boolewaale ci màggalu tubaa ne coronavirus ak situation bi fi mu toll war naa mën a tax lu toll màggal lu Tuubaa ñu annulé ko. teg ko fële waaw lan ngay lan moo ci sa gis. la ma see wax mooy dama koy naqar lu ñaaw la ko ba pare Moustapha Bob Diakhaté dafa xamul boppam xam nga mag mu xamadi amoo xam-xam aw wax tojaa nga rek ngay def xam nga boo jëlee màkk julli yépp ko moom te màkka hmm. la muy sukkandikoo ñuy dogeel tënkandikoo si diine ndax tey jii ka jiite. sukkandiku si diine ndax ña fa nekk yépp ay kilifa diine boroomi xam-xam ñu si bari fàgg na leen semaine bee passé lañ def ubbi discothèque màkk te loolu sa am mhm. kon yaakaar naa ni warul jël foofu référence ci ndax kay dogal màkka fi ñu toll may wax a yow dogalagul ci baatu islam mhm. ñaareel màkk jullit yépp ko moom Touba sëriñ Touba moo ko moom màggal gi Serigne Touba moo wax ne ñëw leen ngeen sant la ma sama borom ci lii mu ma defal mhm. man dama defe ni buy wax dafa war a wax ni dañoo war a def màggal gi defaat yeneen màggal ndax tubaab yi nga xamante ni tey jii ñooñu gëm la loolu seen stade yaa ngi fees seen làmb yaa ngi fees Macky Sall tourné na ba sonn yaakaar loolu la waroon a wax. jàppoo ne raisonnement euh, responsable la am. dama ni dafa xamante laa la wax. moo tax mu wax ni mu wax mais màggal gi muy taw dana am. Hmm. muy naaj dana am kenn mënu koo fommloo ndax ndigulu Serigne Touba la. bu njëkk xëy day bañ doomu jàngoro bi bu njëkk ki nga xamante ni bu njëkk laa la wax bi nga xamante ni gënoon naa garaaw muy ba muy doog tàmbali. Hmm. doon nañu wax wax ju mel nii bi sëriñ bi waxee ni ndigulu sëriñ tubaa du xalaat mukk new nekk xalif sëriñ Touba du ko fomm bi ñu màggalee def la ñuy def pare kaa amul fi may waxee bi sëriñ bi joxee ndigal jamono yi passé ñuy def ay ñaan ci sunu xasaayit bi desaan nawet bi mu doon naan ndox mi ñëw na ba doy feebar bi mi ngi noon 667 cas barki de mi ngi 100 nangam cas affaire wàcc na kooku ñaan moo man lépp kon am na yoo xamante ni il faut que ñu di ko bañ a mooy yëfu murit yëfu yoonu murit mënoo si nekk ma riirandoo ba pare ba si di si dogal ñaareel bi ku taxaw ni yonte bi sallallahu alayhi wa sama ndey sama baay moo gën bàyyi ndey yonte bi bàyyi yonte bi kooku say fa joruñu wax kon jàll si leneen. <laughs> oustaz Maodo d'accord Cheikh Modou ah, ah, Abdou Bara Dolly Mbacké euh, li ma lay laajaat dafa jëm ci wàllu politique ba léegi ah mais coalition yu bëree baree bëri ñu ngi ànd ak ñoom Ousmane Sonko mais ba ma ma laaj loolu sa diggante Ousmane Sonko nu mu demee ratax na Ousmane nu ngeen nu ngeen nu ngeen demee ci wàllu politique Ousmane sama xarit la Ousmane sama xarit la ñoo bokk nekk assemblée national mhm. bi mu ñëwee assemblée ñu bokk fa nekkandoo ma ñëw ci coalition gagnante Wattu Sénégal bi président Ablaye Wade jiite woon nekk ci parti bokk gis-gis. muy mhm. nuyu président Pape Diop mii suñu kilifa. nekk coordonnateur département bu Mbacké. Mhm. nekk membre comme directeur nekk secrétariat national. ba noppi yore charte du joli di parti bi. kon kooku kilifa laa fa. moom bi nga xamante ni ñëw na assemblée gis na may doxale moom. mu xam ni nitu député liberté démocratie koo xam ne da ngay taxaw sax askan nii lay doxale mënu ma kat honorable dama bëgg ñu fasante kóllëre man ak yow ndax gis naa sa taxawaay ñu jàppante ci loolu muy taxaw côté bii may taxaw côté bii bindee ba nga xamante ni fi ñu gën a maanaam jaxasoo nag mooy bi problème bi amee ñu bëgg ko na néewal dooga bëgg ko faagaagal bëgg rey démocratie ci laa jóg taxaw nag ñu du fi amee. défendre défendre ko mais défendre ko pour défendre peuple bi la. du jëmmi Ousmane Sonko laay défendre damay défendre démocratie bi ndax Ousmane Sonko tey bu ñu ko faagagaloon jàpp naa ne tey fi ñu jëm ni duñ fa àgg ndax Macky Sall kon su boobaa day defan lépp leer na lu ko neex lay def mais day am foo xamante il faut mu taxaw ñu ne ko déet yamal fii te aussi mënoo tuumaal nit ki te yow la nga ko tuumaal du dëgg nga wàññi ko sa ministère ni lan koy tuumaal du dëgg say nit ni nu nga ko tuumaal du dëgg tey jii tey ñu bëggoon ko jël faagaal ko ngir mbirum ñu ko defoon suñu relation mi ngi continuer ñu ngi déggante téléphone mais bokkuñu parti mi ngi ci parti maa ngi sama parti. mais teewu sama xarit mais honorable mu ngi koy défendre à tel point que euh, ba coow la amee foofee te assemblée jamono yee. waay waay diggante Sonko ak Mbéri si la. Euh, honorable euh, témoin la woon ci kii bi mais bàyyiwul bàyyiwul affaire yi sedd. non loolu parce que Mbéri si la tamit dafa génn. dafa xëy na mer la wala bon. en tout cas loolu am na lu mu def Ousmane Sonko. yamale wala injustice nga doon bañ wala. waaw loolu itam li ko waral mooy njëkkawul ko Ousmane Sonko xam nga yéen da ngeen di gis rek Ousmane Sonko. Hmm. mais ñoo njëkk ci commission bi nga xamante ne mooy commission loi bi mu ñëwee assemblée nationale. Mm. man mi wax yow vice président commission loi la assemblée nationale. Mm. ndax président de la république commission lu mu indi assemblée day jaar si ñun doog a ñëw ci plénière bi. Mm. Serigne Cheikh Bara Dolly bi nga xam mooy président groupe bi di sama mag di sama xarit. député Awaña taxaw na di ko saaga ndey ci commission bi. ah waaw commission bi du ko filma Djibril War si boppam. Mm-hmm. taxaw na di di saaga maam Diarra Fam ak Marie Sow Ndiaye. di leen tuumaal yi ne ay eh, ay ngeen ci commission bi lu gën a garaaw loolu wax ju ñaaw te loolu parti au pouvoir ñoo ko def Serigne Cheikh dafa laaj benn question ki nga xam mooy ministre de la justice ni ko dossier bi nga xamante ni tey mooy faatu matu Matar Ndiaye bi nu reyoon ab euh, Pikine mhm. mais ci yéen la bokkoon ba tey dossier bi kenn leerugul te ñu si euh, euh, ñu ñu bokk ci yéen moom mu jàpp ni moom lay waxal mu saaga loolu rafet na saaga yu continuer ak provocation bi ñun avant ñuy ñëw assemblée nationale ñun jot nañ information yoo xam ne dafa jóge ci ñoom ndax ñoom dañuy am na ñoo xam ne suñuy xarit lan dañuy wax ak ñun mhm. ni ñoom pare nañu pour attaquer leen yow Cheikh Abdou Bara Dolly Mame Diarra Fam ak Ousmane Sonko ndax yéen yéen ñi nga xamante ne yéen mën yàq tey débat bi wax nañu loolu. attaqué attaqué ci nam physiquement physiquement songu leen songu ñu pour xeexal ñun parce que bañ bëgg nañu affaire yi jaar affaire bi jeex ndax ñun affaire bi ñu tàmbalee maanaam 10 heures mhm. ñoo ko yóbbu presque ba 21 heures hmm? bëriwun de mais ñun ñoo ko pousse ba vingt et une di di ñoom rek. waaw ndax ñun li ñu man mënuñu ko ñoom dañuy dugal vingt et un amendement lan dugal. Mhm. bu moom bu moomul jëm de courant dugal question préalable ak mission de censure def appel au règlement pousse ak ñoom man wax naa trois fois ba quatre léegi nag loolu benn bu ne cinq minutes ñaar temps lay jël. ñun xamoon nañ loolu. moo tax bi nga xamante ni dem nañ ba si biir ñoom Moustapha Niasse wax leen ne eh kaay la ñu waxtaan. ñu daal di génn ci biti ne leen li nga xëy ñii bu ñu leen toppee loi bi du jàll. yéen ñëpp retiré wu leen ba mu des juróomi personne kon honorable li li nga may li nga ñuy xamal ni mooy kon euh, attaque boobe Sonko euh, ak Mbéri Sylla euh, juróom coow lool. donc c'était prémédité. dafa commencé woon ci bureau yi commission yi te kenn fekkeewu ko. waaw yéen yëgoon ngeen. donc mu dem ba ci ba ba ci biti ba yow nga nga teewe loole xeex xeex boobee bu dee xeex am na euh, jur na coow lu bëri de. waaw jur na coow lu bëri mais xam nga li ma si ñaaw lu mooy Ousmane Sonko dootu mu mbaroo mu mbëri si la ndax bu fekkonte ni Macky Sall mooy baayam baayam lay waxal ndax moom ñoo yam ñoom ñaar àtte ndax ku dem ba nag candidat présidentiel nekk troisième yemaloo ko suq boo xamante ne nii danga nekkoon garde di def la ngay def ba Macky Sall jël la indi la fi nii nga ñëw pour di ko défendre am na yoo xamante ni dama ko ñaawlu. pour yow pour yow Sonko du moromu. du moromu Mbirist la si benn côté. moromu mbir ndax lu tax mooy bokkuñu ñoom ñaar catégorie bu ñuy boxe kii li mu soxla mooy cuq waaw mu ne waaw bu ne ko den mu bi comme man. a ñoom ñaan doom ñaan yëpp député la mais tolluwuñu ah. ndax ku dem ba nekk candidat présidentiel parce que fi teg la fenn nga nekk leader du parti bokku la bi nga xamante ni na fekk Macky ngi tooga ngi ci saalam mhm. di seetaan mhm. xam nga bolokaas RTS bi nga fa gisoon mën naa ko def ah ni ni kenn du fi direct ñëw bloqué RTS dans 30 minutes parce que ñoom dañoo ñëwoon. ah yow yaa bañoon RTS filmé. maa bañ mu fi non maa bañoon mu interview. ndax dafa jëloon quoi ndax li tax mooy dafa jëloon ñi nga xamante ne ñooy au pouvoir bi yépp kenn ku nekk di wax lu la neex. nga dem bàyyi opposition bi may leen stop ñu dagg seen direct bi. Hmm. nit da am fulla gis nga li nga moom da koy jël ensemble ñun député ñoo ko moom RTS moomu ko boo a jaay daal na ko jaay RTS gën ko te dafa retraité woon na ko fi xamul lu mag Sall di xaar loolu mooy li nga xamante ni moom la nit ku baax war a xeex da ngay xeex ba am la nga war a am boo xoolee tey jii bi Ousmane Sonko di génn ci recombrisi la def coup de poule xeex bi am cokkaas ko daal cokkaas ko xeex bi am gis nga député Aliou Sall bi nga xamante ni ab jaay ko tu la woon mu nommé ko tey jii mu def ko député mooy ndaw soosu noonu moo njëkk di saaga saagal ma yooyu yëpp moo lay wane la maanaam li sëriñ Mansour Sy Djamil loo doon wax rek nee na bu fekkonte ni tey jii assemblée maanaam assemblée normale la tey ñi fi nekk waruñu sax nekk ay chef de quartier seen dëkk bay ñëw nekk ay député. mooy Macky Sall moo lay wan ne rek euh, ñim fal ay cuune lan. doy na waar léegi euh, Ousmane Sonko yaa ngi koy tudd ak euh, seen xarito. Euh, xam nañ ne Ousmane Sonko ñu bëri ñu ngi koy gis ëllëg euh, ci élection présidentielle yi mu mu dem ci fu sori euh, fu kawe rawatina ñu bëri ñu ngi koy gis futur président de la république yow yaa ngi ànd ak Pape Diop ancien maire de Dakar est-ce que yaakaar nga ne Pape. coalition voilà dina topp ci ginnaaw Ousmane mais pourquoi pourquoi nga ne que warut nekk président de la République en 2024. man moom ah, laay souhaité. te bu ma àndee Pape Diop 2024 damay gagné ndax man li gis nga boo gisee élection yi passé dem ni mu demee mooy dañoo éliminer Pape Diop ak parrainage parrainage hmm. éliminer Khalifa Sall éliminer ki nga xamante ne mooy Karim hmm. ñetti candidat potentiel yi gën a am doole ñoom ñëpp dañu parrainage bi dindi leen parrainage dindi leen mais bu leen parrainage dindee lan moo fi sës yenn candidat yi nga xamante ni tey jii xëy na dañ leen a formaté na am na ñoo xamante ni sax dañ leen a defal parrainage moom ju sax may wax ak candidat bi nga xamante ni yaakaaru ask xale yi la hmm. muy Ousmane Sonko loolu moo tax ka mu demee ni mu demee mais ku ne xam na ni tey jii élection locale man sama parti ak coalition bi may doon candidat lay doon élection député yi ñëw nii ak sama parti ku may coalition dañuy nekk candidat kooku même lu ma nekk nekk xaritam sama intérêt parti ak intérêt peuple bi ma fal moom lay défendre hmm. te élection 2024 président de la république Pape Diop moom la si woote mu nekk candidat indiwaat maanaam li nga xamante mooy réforme mooy def benn mandat bàyyi après. keneen mais mais nga naan nga naan nga naan Sall ba bu leen Macky Sall fan. élections yi di jëm pas pas lui-même mais son parti quoi son sa formation politique. non xam nga dafa am loo xamante ni tey yow bu ñu ko yeewoon si nelaw ni ko président Macky Sall sa coalition dana gagné Dakar instant bi ñu toll nii du ko gëm. ah bon même Dakar. même Dakar bu ñu ko na nga gagné Touba Touba moom mënu ko gagné. c'est terminé c'est terminé <laughs> mooy président de la république bi nga xamante ni moom kese moom mës sa gagné Touba. est léegi. Euh, euh, puisque ñu nuy woon ci Pape Diop. Euh, Pape Diop ñu bëri ñu ngi koy gis favori ci mairie Dakar ah. ñu bëri parce que ñu bëri Dakar apparemment ñu ngi neen euh, namm nañ euh, bi fi Pape Diop nekkee maire donc il est éventuellement Pape Diop mën na nekkaat maire u Dakar ëllëg léegi naka la Pape Diop nit yi di ko xalaatee mairie Dakar ñu bëgg a séance présidentielle 2024 ci moom. léegi candidat nekk waaw mais xam nga présidentielle 2024 la maire hmm. Dakar 2022. Hmm. Pape job li mu def Dakar. Hmm. tey jii mooy mooy euh, réalisation bi nga xamante ni foo jaar gis ko. Hmm. tey boo gisee euh, maire waa Dakar namm ko du waa Dakar gi sa waa Sénégal yëpp ñoo ko namm parce que hmm. Pape Diop nit la koo xam ne liggéeykat la. Hmm. amal na njëriñ ci askan wi tey tamit xam ne fi mu jëm. kenn mosu ko dégg. donte li muy génn bëriwul. kenn mësu ko dégg mu wax wax ju ñàkk fayda. kenn mësu ko dégg mu jëf-jëf ju ñàkk fayda te askanu la nekkal gëm Serigne Touba teg si bi mu nekkee maire Dakar nekk président assemblée nationale nekk président Sénat Pape Diop li mu fi def képp koo wax ne yaa ngi fi xam nga ni benn maire mosu ko fay def te bi mu fi nekkee ba léegi kenn def ko fi. waa yi nag. lu mu fi def. ah bon yow mosu ñu nekk sa maire. <laughs> loolu loolu am na solo loolu am na solo wante euh, euh, parallèlement ci askan wi ñu bëri ñu ngay wax ne justement Pape Diop. Euh, xeexu askan yu bëri yoo xam ne dañ koy xeexal askan wi duñ ko ci gis. waaw mais xam nga yow. loolee loolee nga bëgg ma gëmloo ne wey askan wi dañ koo namm et tout ça. alors ouais. que on le voit euh, léegi dañoo nekk parti organisé aussi. Hmm. ñun si parti la nekk. man ci parti moo ko jiite. mais moo ko jiite mais li mu war def yëpp xam nga am na yoo xam ne xeex boo xam ne da taxaw si mbedd yi di wax. Hmm. di jëfal askan moo ëpp solo te askan wi nga xamante ni tey ji ñoom ñëpp yitti woon nañ ko ci seen côté ar Pape Diop ar bu soxlaa Pape Diop gis gis gis Pape Diop hmm. lu jar a wax bu génne dana wax lu jar a daje dana jaje mais nag am na si yoo xamante ni aussi fi mu toll ci politique expérience bi mu am ak ni mu nekk woon suñu kanam papa muy président Ablaye Wade ak fi mu jaar am na xeexu ñàkk fayda yoo xam wala yoo xam ne doo si dégg laata laata laata ñoo génn ci wax yu mairie yi oustaz euh, jamono yi euh, mairie ci boppam euh, am na coow bien sûr Dakar Plateau de Dakar Sandaga ban gis-gis ma si am mooy dafa am maanaam benn acte acte de acte de boo xamante ni dafa ñëw wax ni mboolee maanaam marché yi dañu koy jox communes yi mais bi mu ñëwee comme Dakar dafa nekk maanaam mais marché bi dafa nekk marché spécial bokkul toon ci li nga xam moom lañ décidé ni day dem ci commune Dakar Plateau mais li ma si mën a leeral rek mooy marché boobu noonu jaaruwul ñu ko jox maire Dakar Plateau te joxuñu ko maire de maire de la ville tey dakaar lu mu rëy rëy rëy rëpp muy maire Dakar Plateau mu yeneen maire dakaar mooy seen kilifa. mooy ville de mooy ville de kon bu fekkente ni da nga yow ñëw loo xam mosoo koo rêvé mosuñu xalaat ni Dakar Plateau maire ba fa nekk dana xalaat ni dafa war a jël marché Sandaga tey mu xam ne am na ay procès yoo xamante ni état am na ko ak maire bi yooyu bëgg a pare mu bëgg ko ñëw foqati parce que dafa bokk ci état loolu Dakar na yenuwul maanaam kon yëf yu ñu ban ko bañ def yëfu affaire politique ak politique man bu may jàppale. damay jàppale askan te askan wi nga xamante ne tey ñoom ñëpp wax na ni nañu ko jox maire de la ville mu yore ko mooy ki gën ci ñoom mooy ki gën tamit ci réew mi. d'accord mais dama dama gis ci problème moom ñu del si wàcc un peu ci gannaaw ci problème mu Sonko yi ba nee tëll tàmbali tuumaal da ngaa jóg ne lii du dëgg politique la dañu ko rax nangam booy bi lañ bëgg a faagaagal mais euh, ay affaire viol ak yu demee noonu ñoom ñoo gën a dëgg ñëpp daal di jox say ay exemple la ne am na ñooñu daje woon naa ak ñoom ci benn kii. ñan ñan <laughs> ah, yaa ko tudd ma tudd. ko wax ma wax. ah déedéet ah, yaa ne président. Macky Sall waaw. <laughs> yaa jar mu yor benn bu ndaw bi. waaw oh, dëgg la. léegi après dañu tax du tax ñu mën a jàpp mooy mooy bokkul euh, euh, bi ñu wax affaire Sonko dafa ne mooy. d' génn guddi gis naa Macky Sall mu dugg xuma France France. parce que yaa yaa fi waxoon ne. Euh, waaw xam nga li appaab xali kilifa bi. waaw waaw li nga xamante ni moom laa lay tonc si loolu. mooy tey la ma doon naan politique la ministre de la ministre la justice si boppam. Hmm. taxaw na ñu interview ko mu ne viol amul. ci affaire dossier Ousmane Sonko bi xam nga kon dèjà jox na ma dëgg. waaw waaw moom waaw waaw viol moom gaa gaa yi tegg nañ ko. xam nga wax na ko moom nekkatu fa. voilà léegi nag kenn ku nekk la la la ngay def si guddi gi am nga sañ-sañu def ko bu fekkente ni seetoo sa diggante ak yàlla xaw ma lu mu deful lu mu deful. d'accord mais ñeneen ñi moom tase na ma ak ñoom. ah bon te am na pardois fenn foo xamante ni am na benn kër boo xamante ni am na benn fauteuil bu ñu tuddee fauteuil diw. <laughs> ah fii ci pardois. pardois waaw ci wetu maanaam euh, euh, terrain bi ci école bi kilifa politique la. waaw kilifa la kay. Ah. fauteuil fauteuil diw lañ diw lañ ko tuddee. fauteuil x quoi. waaw te boobu te boobu man maa nekkoon bi. <laughs> kon Dakar tax <laughs> di ko Dakar tax Euh, te te kilifa gi mu ngi kilifa. mi ngi kilifa kay kilifa gën a ngande kay. dégluwaat la woon xam nga sama xarit la woon. sama xarit la woon mooy ki muy tudd rek mais sama xarit la woon quoi. ñu nee ñun ay eh, fii photo yi. Ah, eh. <laughs> eh, mbokki internet yi maa ngi <laughs> kilifa noonu. waaw n'est-ce pas. waaw loolu yëpp ci réew la xewee. gi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm kooku mooy euh, Serigne euh, Bara Dolly sëriñ Abdou ah, sëriñ Abdou Abdou Bara Dolly mooy honorable député nekk suñu gan tey ci ndekki li émission nandite yi euh, fàttali ñi nekk en direct ci YouTube bi ñu ngi gis euh, réaction yi bëri nañ lool macha allah hmm. ñu ngi leen ciy sant laata ñuy tëj émission bi le une Sud Quotidien bu tey mu ngi nii donc euh, hmm. xam nga Sud Quotidien tey en ce mercredi 18 août lii la xëyee muy Macky prime ses cracks et averti. mooy concours général bu amoon démb. Ah, e. euh, voilà euh, waa léegi am na yeneen une notamment euh, li jëm ci cere yeeg li jëm ci CAN 2021 beeg et cetera et cetera. kon oustaz Maodo Faye on va boucler. waaw waaw mais benn question laa bëggoon laajal ci kii bi xanaa 5 minutes. mais xam nga Macky Sall dafa jekki def def tournée tournée économique la ñu ko tuddee économique. Hmm. infrastructure yi mu defoon au nord ci boutique boori Matam ak yooyu. jaadu na président de la république li nga def nga dem seeti ko l'honorable député loolu dara newu ci mais yéen dama dégg gis yéen opposition bi Macky def na tourné ne fi dara moo yokk doomu jàngoro ji infrastructure yi anamu maatam nangam mais pourquoi mais chef de l'état kay yaaxeetu na droit nag seet ba nekk boo defee dara am nga seen sañu seetu ko mais ni mu ko seetee baaxul yow wanoon ni dafa am benn feebar bu nekk ci réew mi lan lay bañ mooy dajaloo mhm. nga ni da ngay dem jël ay bus jox ko ay nit say nit ñi jël ko dugg dem dajaloo ànd ak yow lambar lambari ci àll bi buy bëgg de mhm. ñëwaat feebar bi yokk ko kon mooy responsable moom la. bu fekkente tey da nga defar dara benn ministère defar ko ci réew mu normal ministère ba ko defee na dem immigré ko. Mhm. yow heure boo bëggee def sa tournée économique ku ne xam na ni président de la république moo gën a informé ci Sénégal mhm. bu fekkente ni dafa soxla maanaam lu mu soxla Kaffrine dafay woo préfet gouverneur ñu ko ah waxal préfet sous préfet lan moo am foofu. ñoom même pas 24 heures ñu day ko fa am lépp jox ko bulletin. kooku yaakaar naa lan la ngay jaree jël maanaam 60 oto oto bu nekk cinquante mille francs lay chargé essence palin nga def ko pendant une semaine fa ñuy dal ay hôtel la seen téléphone nañu soxla askan wi ak la ñuy lekk parce que coûté na la 3 milliards nga ñëw maanaam yokk feebar bi yaakaar naa kooku responsable moom la. yow moom moo moom tey jii vague bii nii troisième vague bi Macky la nga ko Ah. waaw. ah waaw. il porte le nom du président. Euh, il porte le nom du président parce que moo tax mu yokk ndax bu ah. fekkonte ni tey jii nan doon xeexe feebar bi defutoon tournée bi mu ñëwee tournée bi du euh, euh, yokk comme ni mu yokkee ba noppi ñaareel bi. tey kon troisième vague égal Macky Sall. égal Macky Sall ba noppi ñaareel bi yow. image dafay am solo ak communication. Mm-hmm. man Macky Sall bu ma nekkee président de la république ñu ni ah feebar lan lay bañ ñu ni joxe loxo lay bañ. Mm. ak li nga xamante ni maanaam mooy jigante mm-hmm. yow nga nekk président la di seeti maanaam ku feebar dafa am kuréel nga dem di ko jox loxo ñu lay photo loolu jaarul la mauvaise image. dafa dafa wane mauvaise image ci en termes de communication baaxul euh, euh, euh, moom sama xarit la. mais ñu ko wër baaxuñu. mais léegi man mais léegi yow li nga. Macky Macky Macky sa xarit la. lool Macky. da ngeen di déggante saa di woo na ma téléphone Touba. ah di mi ngi yóbbal sax si kaw si ci benn kilifa naan ko neel neel honorable li may wax naqar na ma maa ngi koy jéggu fekkee naqar na ko sama xarit la mais dinaa ko ma ah, la mais yow dëgg rek ngay wax waaw dëgg rek la rek mais Touba dama la xam nga Touba Serigne Touba moo ko moom ah, kon nag d'accord bàyyil dëkkub jàmbur titre foncé la sëñ bee ko moom lu neex la ñuy def Moustapha Diakhaté murid la ma riirandoo la du murid ndax bu doon murid wax leen la ah bon lu murid ma riirandoo kon nag baax na <laughs> kon nag mbokk yi la ñu ngi lay sant bu baax a baax l'honorable député di la gërëm bu baax bi lan nga leen di souhaité waaw rek comme ni ma ko tàmbale woon ñaanal leen at mu bees atum jàmm atum naataange ndax ñun lii mooy suñu fet mm-hmm. ñaanal réew mi jàmm ak dal nawet bi àgg si jàmm tey tamit ndox mi comme ndox moom xéewal la mm. ak lu mu yàq-yàqee wala ñu fexee aussi rek jéem a xool nan lañ mën a dëkk ndox mi ak nin mm-hmm. comme ni dëkk feebar bi rek c'est vraiment jërë ngeen baax di la euh, euh, a baax a baax oustaz Maodo Faye kon maa ngi dellu di la sant di la jërëjëf jërëjëf Nicolas am suñu gan gi màgg na loolu kontaan nañ macha xam naa ne moom fengoon moom affaire yi non non <laughs> réaction d'ailleurs maa ngi jox euh, rendez-vous mbokki internet yi pour vidéo bi nga xam ne di ngeen mën a seetaan honorable lii nga xam ne moom la ñu sekk ak moom waxtaan tey ci euh, suba si ci ndekki li kon jaajëf oustaz jërëjëf jërëjëf ni kilifa gi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax yéen ñi ngi ñu doon topp euh, ci sunu station régional yeeg euh, digital bi bëgg nañ leen sant nañ leen gërëm nañ leen gis nañ cofeel gi ngeen am ci ñun ñu ngi ciy bëgg bu baax a baax a baax jaa ngeen jëfati merci à l'équipe digitale merci à l'équipe technique merci à vous tous on se donne rendez-vous la semaine prochaine puisque demain c'est férié restez sur Sud la première radio d'information du Sénégal et n'oubliez jamais viser la lune c'est important n'est-ce pas salut. ndekki li daal ca dëgg-dëgg mooy émission nandite yi. ndekki li émission yi.